yéen ñii di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës kolos bi ngir man di jot suñuy notification waaye bu leen di fàttee sem tey partage suñuy video ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural mbokki Sénégal mbokki bitim réew waaye rawatina mbokki ceeskaay benn dëkk ñaari gaar yéen ñi nga xam ni da ngeen a am jafe-jafe dëkkuwaay wala koo xam ni dafa toll ci ut ko te bëgg koo am ci anam bu taw féexee jot ay kayitam te du ci am benn coono seen jaaxle jeex na ngir seen kër gii di Nihma immobilier di yëngu ci wàllu dëkkuwaay di agence bi gën a mag fii ci ceeskaay ci wàllu immobilier fexe leen a jokkoo ak moom ngir mën a mucc ci jafe-jafe dëkkuwaay woo leen ci numéro yi leen di jox

شكا لحو بعير زكاة العقل للضرار وهو الذي جاءه ظبي يكلمه وطب كلمه تكليم معتبير وهو الذي انشق تصديقا له خمار والجس حن له تضيع تضيع ساري وهو الذي مشى فوق البير وارتفعت مياعه كارتفاع الموج في الخبار وهو الذي لا زالت عرماتها إرسا على ذكر ما قد عاز من شيار لا قصد عد الذي قد عاز من شرف لأن ذلك عيا كل مفتكر أجرا امتداحا له في محكم شواري فكيف يمدو خلق وخالق أجرا امتداحا له في محكم شواري وهو الشفيع الذي أرجو شفاعته عند الممات ويوم شف والقضار يوم يفر من المولود والد فيه وعين من الأتباع بالعذار يوم يفر خليل من مخالل يوم ترامي به النيران بالصرار وذلك اليوم لا يغني بنون ولا مال سوى مخلص لله مقتدير وذلك اليوم لا يغني بنون ولا مال سوى مخلص لله مقتدر وذلك اليوم لا يجوز سوى ورع قد كان ذا توبة لله منصدير يوم تكون خفايا الأمر ظاهرة لكل ذي شفاء مع كل ذي نشار يوم به يكشف الرحمن عورة ذي شرك وعورة سيبق وضيق ضار يوم laa ci def parce que nit amul lu dul ay bis bii sama doom moo koy def sëñ Fallou Xasida ma juddoo fii ci biir kër gi sama kër maam Omar Anta Ngoulan euh, fekk fi samay yaay ak samay yumpaañ ak sama nijaay sama doom Fallou Xasida fii la juddoo fekk fi ay nijaayam yëpp nag ñu ànd koog man bis bii nee naa la benn bis gën koo kawe ci bis yi ma yi ma passé yëpp damaa kontaan lool donc wax ji sax mënu bari ndax mënewuma di wax nii mais sama xol dafa seet daal macha allah maa ngi ko ànd ak samay doom ak samay rakk ak samay xarit kii mooy sama taaw sëñ Fallou Xasida topp ci kee Ndey Mari la tudd dëkk Ndar yaayam mooy sama xarit kii moo di sama caat Khady Bara Char tudd ak maam Penda Ñaam maa ngi koy defe fii ci Touba Daaru Minam ci kër sëriñ Omar Anta na di ko defe fii ci sama biir kër nijaay Xaadim euh, Gueye ak Cheikh Gueye Ñaay ak nijaay Serigne Gueye ak nijaay Ahmadou Kabir laa koy defee chaque année fi laa koy defee duma ko mos a changé ba àddina di tukki parce que fii laa juddoo fii laa màggee xaw ma fu du fii lu may def ci àddina rek ngeen laa ko war a mën a defee parce que mooy sama tiitar fii laa xam sama rakk laa ko àndal. bis bi nan nga ko waajee ak nan ñan ñoo la ci jàppale. bis bi dañu ko dañ ko waaj mais commencement bi xamuñu woon fu muy fu muy fu muy yem daal biñ koy commencé dañu defoon rek suñu bëgg ak suñu njàmbaarte waaye bis bi dafa dafa mujj dépassé parce que sëñ Fallou dañ ko duppee sëriñ Fallou mu mag falu xasida moo topp ci njóobam bi di sama sama taaw waaye man mii di yaayam man wax dëgg yàlla bisam bii sama xol sedd na ci trop te xoola bis bi dafa ala mi macha allah maa ngi ko bokk samay samay rakk yi ñu teewagun fii ñuy wax Abdoulaye Guèye ak Moussa Mbacke Guèye sama rakk ñoom ñëpp samay rakk lañ ah man awma lu dul sama famille lu ma mën di def ci àddina rek fii laa ko war a mën a defee ndax fii laa dëkk samay rakk bëgg ma lool samay yumpaañ bëgg ma samay yaay bëgg ma samay nijaay bëgg ma waaw asalaam alal wara safaaw man abdaaw ramadu kuyin wara madaaw ويوم سب الكعامي ويلت وعلى المجالة لة خدر سلسي وعبارة الفرار mbakin musobe na barba masin ba jox no soobu leen dem gaar ba jóg leen taxaw ñi sant Cheikh Falilou jóg leen taxaw ñi sant Cheikh Falilou ti way mu duy leeram goneel ba nu fees moo tax damay tàmbale ci mbër ma Seyxi Omar dil seeti way ña mu duy leeram goneel ba nu fees moo tax damay tàmbale ci mbër ma Seyxi Omar déglul ma wax la nga xam mbër mi mi jóg di ko way day jaamu yàlla bu mag roy sunna jëf li ko war subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin ajmaïn walhamdulillahi rabbil alamin soxna Mbène jërëjëf sëñ Fallou lan ngeen may nga toog soxna Mbène yow da ngaa bëgg sëñ Fallou booba xaw ma woon ni sax nii nga demee sama waa ji sama rakk may woy sëñ Fallou nga topp ma rek bëgg ma sëñ bëgg ma gis sëñ Fallou bi ma teral ci sëñ Fallou guddi fu ma la doon ma nga teral ma bu màggal sa kabar gi ñëwee nga def sama jànkat day ñëw jàng ma dikk fi mag sëñ Xaadim bii ñu jàng boobu xam woon sama jarbaat bii ngay askor bëgg sëñ Fallou Fallou dañoo sëñ Fallou sa lépp la sëñ Fallou nga xam ni faa mën a dem nga xam ni faa mën a dem lu nga def dëgg fa lu nga def dëgg fa léegi nag léegi nag mais kii mooy sama taaw nee sëñ Fallou mi topp ci sama jarbaat bi xamoon naa ko dama ko gëj a gis kii mooy Magi Fallou sama jarbaat bi sa yaay daa bëgg sëñ Fallu waaye yàlla may na ko sëñ Fallu sëñ Fallu xasaay ah soxna Mbène loolu da nga xam ne sëñ Fallu ah sëñ Fallu sëñ Fallu maam sëñ Fallu Sarr léegi nag waaw ci lañ jëm ci kàddu lañ jëm. waaye alxuraan la doon diine la doon ndax sëñ Tuubaa mii defar ñëpp moo defar maam Abdoulaye mii kon nag sama papa dañu woon Lamine ma ne ko Mbàkke mu ne ma nit bu lay defal lu baax nit bu lay defal fii te di ko ñaanal waaye bàyyi bokkam teel na nga ko sant ba ñëpp dégg ko Abdoulaye bi Ndakaaru gom ne kenn jëppiwu ko bu ma xëysee mu faj aajo bu ndaw xëysee mu faj aajo ci barke sëñ Fura ko باق مميت والبقاء جانا قولي قول يخجل المرجانا والدر والياقوت وسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل والأوتانا له شكوري وكفى شيطانا كفاية الباخين ما عتانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب خالق الورى مولانا مع الفراء وزغزح الفتانا وذكره الحكيم خراتانا دعوته وخبلني ألانا قلب الذي حسدني فلانا لو قتابي ورم شانا وزان لي عند العدا ما شانا لك أوجه هنا إحسانا فاخ البدائع الفتى حسانا لك حروفي بحروف حانا لي بها فراخي الألحانا عديتني ولم تزل رحمانا وقلت لي تقديم ولا مانا أعطيتني لفي محل أدرانا بشرت بالأوتان والأقرانا فمن شاء فليؤمن فرح مولد النبي محرما كمال قاد العلا والكرما فرح مولد النبي محرما كمالو خاد العلا والكرم من لك مولد النبي سفرا بضارة قالدة لم تكفرا نفع مولد النبي ربيحا الأول الذي أرى الينبوحا شرف مولد النبي ربيحا الآخر الذي اعتمى المتبوعا أكرم مولد النبي جمعضا فلا يضال ذاكرا حمادا أعطى النبي مغارة جمادا قدد بها بفل عمادا فاض بمولد النبي رجب فوضا بين قارئ إليه العجب يعود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان وجه مولد النبي سوالا بما به قد نوالا مولد أحمد أضاد الإقدام إلا أطن في بردة وبحدة نور مولد النبي ذا العجاه قاد له درجة ومجاه نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم خاد له درجة وعجا لي الله قرآنه جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد ظنة والقرى وإني أحمد يحيي خير الخلق نعم الجيد أرسل خير العالمين الأعد نعم الإله الأكرم الموحد لله عمد ما ذكر يقلد دوام ملكنا بغنى ينفرد كتابك وذق ما يقلد بذري لي يا أكرم من أوحد وعبيدي مرتلى لا قرام سيفالو جارنا جننا مننا داننا فاتجاج مفهوم Serigne Fallou Mbacké jugoon taxoon màggal bay Seex Awa Balla ya teyte mu ne ko na dem xel li balaa waa xawlu naa naamu faal. fan la jaaree wax yëpp. li wër ci saw taax ma ne su ko xibaar ci xiir taax. diglu ma wax la Moodu Fallu laay. ma gën a góor ne naa ci dem bi laay. bàyyi ma doon ko yeewal ca maama. mu dellu yaa yàgg baax ku bëgg baax nii lay mel yaa yàgg baax ku bëgg baax nii lay mel Fallu jaddu na Usen ndeysaan Cheikh Modou Fallu siptu ñaari Cheikh la wallu baay wallu nay déglul ma wax la Modou Fallu laay nam de ni na naa di deng billaay bayu Seex Murtala bayu bayu bayu Seex Murtala wajuma alaji fanu bayu sona madam gey fanu abu saw jaxre ba jammi al marema kunta ya alaji falo bayu min di ballilu teranga majin ba jug na suubu leen dem ka waar ba jug leen taxaw jug leen taxaw nu jënd seexi ballilu ay guddeeg bëccëg ñu jug seexi ballilu